kan you outdo? Ah. Bata moom su ma ko jaaxee. ñëw dëkku bii rek ngeen di deel. daa génn xeet. la ba xatara romb la fii di tabax kër fii Dakar dégg naa cent kër la fi am. bàyyi ñu fa la réewum taax rek. dégg nga tey yow na toog ak seet ba mu fi gis rek. dama am na lu ma dégg. du ma fi fanaan ah. du ma fi fanaan. ma ne am na lu ma dégg. weer koor bi ah. a ñu ne da feeñ weer fan la feeñ ah dañ naan da benn Casamance mais yaa ko téye alhamdulilah alhamdulilah oh, alhamdulilah yi téye mais rebelle bu ko yi bu ko téye lu eh. muy rëccee sa waay yow dimbale ñu waay mais ñun moom am ñu droit téye weer wax dëgg yàlla moom xool ko ñu wóor moo ñu ah, wóor wooruma laa wooruma te eh, ñu kaa woo ñu laaj ko e sonom eh, sonom mais sonom sonom mais eh, sonom we sonom sonom gars dañ lay laajte rek dañ laajte zonom dañ lay laajte rek euh, Bada euh, booy bu tudd Bada fii xam nga ku ñu am kër sans fii Dakar daal te mu bëri xaalis rek pour nañu seet dëkk waaw dund xoof xurba njoxom man Njaay waxuñ ne la dund xoof ale buur Njaay jomb Thiaw Eh, waxuñu la dund xoof. benn xoof nekk bi amuñu màdd xoof yooyu jeex na. Bada lañ la laaj Bada. moom moom ba mu daj moom moom kër yi ba daanaka. Sénégal Njaay dafa changé couleur. couleur léegi vert la ak bleu. ak noir si si da nga may déglu. wuy ma Bada lañ la laaj. Bada lañ la laaj. Bada lañ la laaj wala doo fu mu dëkk. day laajte Bada. waaw Bada waaw moom Bada. xamuñu bàkkaar waaw mais wax naa la xaalis bi nga envoyé ko non non 6 millions dong la envoyé ko ko. waaw yow tey ñoo toog fii ah yow man yow laay waxal de waaw yow kenn du bada yow ba ma bada daa mun a am lii yow tey ñoo toog fii ñoo plaidé naa la wax nga may wax ay waxu bada ah. eh soo waay kii ak nga xam ñu dugg yii kii bada la. xoolal kanam bi bada daa ñuul kooku. te du moom. bada. wa wa wa wa ko. waaw. waaw jéggi ma du moom. bada. fayal doomu jaawul du moom. yow dëgg nga bopp rek. waaye moom la waay yow xoolal nga am yii. waaw ko ma ko bada. waaw kooku mu. Eh, waay man waay. lii la mais. oh oh oh. naa la lépp jaamu. waaw ah, sant sant. waaw yaa soxor. yaa jógee dégg nga daal. mu ngi bàyyi waaye état bi. xoolal may ma tuuti may ma tuuti. eh. état bi ko ma ma ma ma ma maa ko moom. waaw lii laa la moom. iPhone la ah, ah, iPhone la. bu baax bi la. eh instant yii damaa sonn. tëb bi rek laa bëgg. suba ñu wax la li la nar a wax. Bada yaa moom lii. waaw oui oui oui sa sa sa ma bàccee ma bàccee. yow eh sama yaram day métti fu ma tëdd laa wëree te xam naa ne fii moom du fi dugg. Bada waay. eh Bada arrivé waay Bada waay ay Bada.